mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak télévision Futur Média fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru marax yi ci TFM li ci gën a fës bokk na ci euh, yoon wi nga xamante ne ji mooy frontière u Sénégal ak Gambie te ñu tëjoon ko euh, loolu yi nga xamante ne ji kon mooy tëj gi ñu ko defoon euh, lu toll ci daanaka juróom-ñaari weer mujj nañu ko tijji li taxoon ñu tëj ko di Covid 19 bi ginnaaw tijji gi ñu ko tijji transporteurs yi di ko rafetlu bu baax a baax waaye yamuñu te ne it ñi ngi sàkku ci état bu Sénégal mu jëli matuwaayam ngir lu ni mel bu amatee ñoom transporteurs yi ñoom bañ a am benn jafe maanaam lijjanti yeneen i contournement xibaaru maraxi daañu waxtaanee doxum ñaxtu xultu bi nga xam ne askan way yeewoo fële ca diwaanu euh, Tivaouane Pël amal nañu ko doxum ñaxtu boobee nag lañ ca jublu daal moo di gannaaw ba ñu leen jëlee ci seen kër yi daaneel ko euh, ci liggéeyu ñeel lii di prolongement VDN atum 2017 la woon ñu diggoon leen ñaar fukki hectares yi suuf yoo xam ne nee nañ dañ leen ko baaxe ngir kon ñu mën fa am fu ñu dëkk ginnaaw bi ñu dégg ne dañ cee delluwaat gannaaw dellu gannaaw googee moo leen neexul ba taxoon ñu wàcc ci mbedd yi kon doon ko naqarlu réewum Guinée suba ñu amal ay élection présidentielle foofe lu askan wa war a dugg ci mbañ gàcce tànn kan mooy jiite réew mi fàttali ne euh, fukki candidat ak ñaar ñoom ñooy xëccoo di ji ngir xool ku ci jiite moomile réew kan mooy doon président des na ci ànd ak euh, suñu envoyé spécial ba foofee ci Guinée Conakry euh, di Barkaba mbokk yi lii moo gën a fës ci xibaaru marax yi bu ngeen taaxee loo tuuti ñu faram fàcceel leen ko. nuyu leen bu baax a baax dellu rafet londe bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la duggee ak yéen ci yaatalu xibaar yi doore kook euh, accident bi nga xamante ne ji am na naka démb ci euh, yoon fay tolloog euh, fi nga xam ne moo di gómbul cong ba lu toll ci juróom juróomi doomi aadama ñàkk ci seen bakkan ginnaaw accident boobee waa ministère transport terrestre ak infrastructure rek désenclavement yëkkati seen kàddu di leeral gannaaw gëstu yoo xamante ne ji def nañ ko di xamle ne accident bi mi ngi amoon ci diggante benn wata particulier ak benn avion malien eh, ci leeral xam le ne auto particulier boobee nga xamante ne jikkoon da doon yàpp ay nit di leen yóbbu amul woon bi ko ko mën may chauffeur bi nga xam ne moo doon dawal auto boobet amutoon li nga xamante ne ji moom mooy eh, këyit bu koy mën a may muy transporter ay doomu aadama di leeral yoo xam ne ñi ngi ko nangoo ci ministère des transports terrestres infrastructure ak désenclavement jeneen jëye joo xamante ne ji kon mi ngi am ci ndakaaru la amee mu di benn miir bu daanu yàlla def na nag eh, faatul kenn daanaka yu ca bari yàqu na accident boobee amee kon eh, ci benn barab boo xamante ne ji ay gone dañ fay faral di fooye eh, jàkkaarloo ak eh, benn hôtel bu nekk fii ci Ndakaaru yàlla def ci sutura ba nit faatu faatu ci waaye lu bari yàqu na ci rawatina ay oto lu ci mel ni ay wotoy taxi ak ay otoy particulier leneen ci xibaaru marax yi ñu waxtaanee kon ni ma ko waxee sànq frontière bi nga xamante ne ji kon moo dox diggante Sénégal ak Gambie te ñu tëjoon ko ñu ngi ko tëjoon ci weeru me li ko sababoon moo di coronavirus bi ak matuwaay yi nga xamante ne ji kon kilifa yi jël nañ ko ngir moytu lu ko lawal ginnaaw bi nag tijji nañ ko tijji googee ñu ko tijji ñi nga xam ne ñoo di transporteurs yi rafetlu ko bu baax a baax tey sàkku nag ci kilifa yi réew mi ñu ca mel ne union des routiers du Sénégal ngir daal matuwaay yu ni mel ñu koy jël xoolit yeneen pexe ngir lu mel ni bu amatee ñoom transporteurs yi ñuy bañ ji sonnati dañuy lu euh, kàddu yi nga xamante ne ji kon euh, dénk na dénka dénkaane nañu ko ci wooyu la wàll ànd ci ak Boubacar Diassi ak Lamine Mandia. gannaaw bu ñu ko tëjee juróom-ñaari weer yu mat sëkk ubbite frontière Gambie bi doon ab mbégte ci gare routière bu Ziguinchor. ouverture bi daal ñu ngi sant yàlla de rafetlu ubbi frontière bi sonnoon nañu lool métti woon na lool mais sant yàlla yàlla defaral nañu ndox bu sedd. yoon bi moom sonnoon nañu sonnoon nañu parce que sept mois presque ñu ngi toog tey man tey laa reprendre moom tey mooy sama liggéey. Euh, nañu dal si liggéey bi comme ni ñu ko doon defee rek nañ ko continuer noonu ñu moytu lépp waaw ah, dal ndànk yóbbu client si ndànk eggale am nga nañu si jàmm indi leen si jàmm moo gën a rafet daal amul yàkkam bi amul def dara waaw ñu ngi ñaan ñëpp def loolu. passager yi di ko rafetlu. xanaa kontaan rek kontaan bon vu yoon bi contournement bi franchement dafa métti. c'est un calvaire. waaw nit ñi dañuy sonn lool lool lool bon ñaari autorités yi suñu jubee ba ñu ubbi frontière bi ñun passager franchement xanaa di di di leen gërëm di leen gërëm di leen gërëm kontaan nañ kontaan nañ trop trop trop trop. waaye nag ñoo ngi ñaan nguur gi mu def ay jéego ci route nationale numéro 4 waaye it mu fexe ba arrêté taakasari yu nekk ci route nationale numéro 5 bi. yoon bi moom baaxul instant yii yoon bi camion yëpp yàq nañ ko yoon bi baaxul instant yii. yoon moom yëpp yàqu na non état moom maa ngi ñaan mu defaral ñu tali bi balaa ngay indi loo xamante ne lu ñuy sonal defaral ñu loo xamante ne loolu la ñu bëgg parce que yoon moom baaxul fu mu toll nii te ñun amuñu oto yoo xamante ne oto yi baax loolu mooy problème bi. Ziguinchor entrée bi fii boo génnoon léegi léegi nga fekk fa policier boo demee balaa nga yëg pont Émile Badiane da nga fay fekk gendarme boo génnee gendarme eh, pont Émile Badiane balaa nga egg Tobor ci entrée Tobor da ngay fekk foofu gendarme nga jógee foofu dem Bignona di nga fa fekk et eh, Tandjem nga fekk gendarme nga dem Diouloum fekk gendarme ak ah, côté frontière bi c'est la même chose parce que boo yeggee Diouloum yaa ngi dem au-delà de Diouloum fan ngay dem frontière ngay dem. commerçant yi mais sant yàlla business moom dina dox mais li ñaan nag ñaan Bissau ubbi ndax Bissau dafa bokk ci gare routière Ziguinchor ndax Guinée ak Sénégal yëpp benn la. suñ mbir dina gën a baax mais ñu ngi ndax boo xoolee Bissau yi ñooy dem Gambie Gambie yi ñooy dem Bissau waaw su ko defee daal ñu ngi sant président di ko ñaan nag mu tijji bisaaw ñu waxtaan ak waa bisaaw ñu tijji su ko defee ñu mën a liggéey ñëpp am jàmm nag. ndaxte su fekkee ubbi nañu frontière diggante Sénégal ak Gambie. safaan wër moo nekk ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau mi mu di reportage boobu ñoo ngi leen ko defalee ca gare routière ba ca diwaanu Ziguinchor jëmoon ci transporteur yeeg mbégte mi nga xam ne am nañu ko ginnaaw bi ñu ubbee frontière Sénégal ak Gambie waaye it wax nañu fa seenu càkkateef seen bëgg-bëgg seen tawat moo dee tali bi ñu dippee route nationale numéro ñu tabaxal leen ko ngir dem bég dikk bi gën a ñoŋ des ba léegi ci woowule wàll mu di ubbi gi nga xam ne ubbi nañu ko frontière u Gambie ak Sénégal Union des routiers du Sénégal rafetlu ko bu baax a baax waaye sàkku nag ci état bu Sénégal mu jël ay matuwaay ngir ëllëgi si biir lu mel ni bu amatee ñu mën am meneen pexe moo xam ne daañu ca jaare te du jur ay wiire que contournement yu bari des si teewlu leeral yi gul góor a xuma njiital kuréel googee ci jokkoom ak Chérif Dia. bi ñu tëjee frontière tamit doon dañ ci dox ak a wax ay vidéoconférence yu diggante ñun ak syndicat gambien bi muy Gambia Transport Union te euh, Omar jiite ko. pour di ci def ay échange waxtaan ak gouvernement bu Sénégal moom tamit mu waxtaan ak gouvernement bu bu bu bu bu Gambie pour que ñu mën a ubbi frontière parce que loolu rek moo ñu mën a moo ñu mën a arrangé waaye terewul nag tey buñ jekkee jekkee jot information ci gouvernement bu Gambie ci ci kaw boppam ba muy Adama ñu joxe ndigal ne ubbi nañ frontières yi alhamdulilah rabil lañ wax ak contentement bu yaatoo yaatu yaatu la ñu am euh, ci mbégte bi am ci. acteur routier yi waande lii nga xamante ci moom boo gën mooy mbégte bi dafa yaatu laalaale population bu Kolda bu Ziguinchor ak bu ak ak bu Sédhiou parce que booy euh, les régions sud loolu daal mbégte bu daal daal la ci bi daal mooy mbégte contentement lañ ci mën a dolli rek mooy ñu tirer attention gouvernement bu Sénégal na leen Gambie tëjoon yoon frontière am fii ci région Covid 19 mais ëllëg aussi frontière bi mën naa tëju ci leneen kon gouvernement moo wut ay solution am benn contournement boo xam ne bu gàtt lay doon te du jaar Tamba nga xam ne oto mën naa jóge Dakar dem Sédhiou dem Kolda dem Ziguinchor te du jaar Tamba parce que ay proposition mën leen kaa defal pour que ñu mën a crée ay contournement yu gàtt ndax kat dëkkab jàmbur bu fekkee ne yow da nga ne for pour nga dem sud bi forcément nga ci biir Gambie tey mën naa neex mais suba mën naa naqari ñun daal acteurs routiers yi ñun defuñu lu kontaan gërëm Adama Barrow bu baax ci décision bi wàññeekuwaat di waxaat nañ respecté aussi mesures barrières yi nañ topp li nga xam ne moom la ministère de la santé bu Gambie santaane askan wa yeewoo ca Tivaouane Peulh wane seen bopp mer moo xamante ne ji mer nañ ko ak jaaxle gu ñuy am taxoon ñu wàcc ci mbedd yi li ko sabab moo di atum 2017 ci lu aju ci liggéey yi nga xam ne moo soxla woon prolongement VDN dafa am ci seen i kër yu ñu fa yëkkate woon ginnaaw bi ñu dégg ne danañ leen jox ñaar fukki hectares yoo xamante ne ji ngir fañ leen yëkkatee ñu am fu ñu sanc euh, bu yàggul ñu dégg yeneen i xibaar ci neen ko waxee jëm ci ne dogal boobee kilifa yi réew jëloon dellu nañ ca gannaaw mu jur ci ñoom métit ak naqaru xal taxoon ñu ko doon wane na ko démb ci manifestation euh, collectif la ñu tënk seen bopp kii di Pape Khali Guèye moo amee seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Ousseynou Thiam. Euh, ñu jaar fi ñu war a jaar aussi déposé en tant que ay citoyen sénégalais jaar ci voie bu normal déposé suñu autorisation presque huit jours déglu leen déglu leen jàpp nañ ni même bu fekkente ni duñ ko autorisé waroon nañ ñu wax ni dan euh, quarante huit heures wala soixante douze heures ñu wax ñu que ni euh, marche bi kat duñ ko autorisé mais xamaluñ ñu loolu dañu ñu bàyyi ba le jour ji même ñu wooñu ni ñu marche bi duñ ko autorisé. njortu naa ni bu ko état bi gaawul réglé dina am dem dinañ dem beneen étape bu gën a kawe bi. parce que victime yi tey victime tey victime yi. naam que traîné nañ ak ñun état bi traîné ak ñun di dégg dikk ñu war ñu fay impense gisaguñu dara trois ans victimes yi egg si nañ ci étape boo xamante mënatuñoo muñ dara te li ñu jox. tànnaluñ ko suñ bopp encore une fois ñoom état bi ñoo bind seen kayit ñoom état bi ñoo ñëw identifier fi ñu jox muy 20 hectares yi ñoom état bi aussi tamit ñoo ñu autoriser que ñu liggéey le temps que yi di ñëw man dama jàpp ni benn dama jàpp ne benn lobby benn lobby boo xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw président Macky Sall di lobby di di di jël ronkoñu baadoole yi di ci siim seen i cere benn lobby boo xamante ni tey ñoo taxaw ci Sénégal bëgg a def seen bopp ay milliardaire ci kaw baadoole yi te nañu xam ni fii ci Tivaouane Peulh fii suñu maam yi ñoo fi nekk doon fi bay doon fi sàmm ñun képp ku fi war a dugg jàpp naa ni suuf si da nga war a ñëw ñu jox la mais ñoom duñ ñu wër ndomba ñëw di tiitari suuf si nu mu leen neexee fii tiitari fi nekk yëpp benn baaxu ci parce que suñu suuf la Barça wala Barsaq di xewit woo xamante ne ji seetlu nañ ne fan yi dafa dellu si li ñu ci seetlu moo di ñu jël gaali loo coy wutali bitim réew ñu ca bari ñaare boo seetee seen métier ci géej gi la maanaam ay mool lañu euh, ñu seetlu nag ne ñu bari ci ñoom ñi ngi jël gaal di wutali bitim réew ngir yaakaar fa teranga li ñu leen di wax bu ñu leen jàppee moo di géej gi mënatu leen a dundal ndax lu bari ci li nga xamante ne ji mooy licence de pêche yi daf leen di jéggi loole Union nationale de la pêche artisanale du Sénégal di ko dëggal di xamle ne li ko sabab mooy pêche jox koy bateau yi nekk bitim réew ba tax mool yi réew mi mëntuñ cee dund mu di lool ci seen bëgg-bëgg ne ci état bi jël ay matuwaay nu mu gën a gaawee Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye kuréel bi ëmb pêche artisanale li mu bëgg dafa leer mooy ànduñ ak kuréel yi nga xam ne moom la ñu duppee CAP ci lu jëm ci wàllum licence de pêche yi daa am benn kuréel goo xam day wër si dëkk bi naan daa ànd ak suñu kuréel muy INAPAS te ànduñoo ak moom tey ànduñoo ak moom ëllëg ñi di yëngu ci wàllum napp gi di ñaax kilifa yi ñu ajandi te tamit arrêté li nga xam ni moom mooy licence de pêche yi ñuy joxe bato yi nga xamante ni nii tey ñoom ñooñu teg coono bi ñuy dundi ñàkkum jën si géej gi ñoo ko waral dootuñu nangu tamit aussi benn bato ñuy tëj suñu finaan di leen bàyyi ñuy fanaan si géeju Sénégal dootuñu ko mën a te li nga xamante ne mooy licence de pêche képp koo xamante yaa ngi koy dox pour ñu may la ko ñun ñun ànduñoog yow tey ànduñoog yow suba. ñoom ñu yokk di xam le ni liggéey bi yàqu ak anam bi nga xam ne tamit noonu la ñuy nappee tax na ba tey jii nii ndaw ñi Barça wala Barsaq la ñuy tànn. ñun ñoo yor askanu ñoo leen di jox jën yi ñu soxla ñu demee ba tey bay jooy ñàkkum jël clandestin yi di dem Espagne du fi dakk tant que jëlewuñ fi ba tey clandestin yi dañuy dem dañuy gën di yokku nit ñi dañuy gën di dem Espagne parce que coono yi ñuy dund ci secteur bi ñun ñoo ko xam. Union nationale de la pêche artisanale di xamle ni dina gën a dugal loxoom ci xeex bi ndax li ñu bëgg muy luy meññ ci géej gi ñu aar ko ba mu amal askan wi njëriñ. diggante 2013 ak léegi bari na ASP yoo xamante ne ji ñii dugal nañ leen ci police bi ña ci des ñu dugal leen gendarmerie euh, wala ci administration bi loolee ki ko xamle moo di secrétaire général bu ministère de l'intérieur di xamle ne état bi. am na yoonu ñu dugalaat ci barab yooyu lu toll ci juróom benni junni ak téeméer ak juróom fukki agent de sécurité de proximité mi ngi ko xamle ci atelier di lal boo xamante ne ji ña ngi ko doon amal ca diwaanu Saly Portudal ga ca Mbour teewlu Ibrahima Sakho mooy secretaire général bu ministère de l'intérieur kàdduy leeral yi la dénk Abdourahmane Diallo. ASP yi ñu ngi police ñu ngi gendarmerie parce que niñ leen tuddee agence d'assistance la assister mooy jàppale. te ñu demoon police ak gendarmerie di jàppale leen yenn postes yi pour liggéey bi nga a dox am na ñoo xam ne buñ fa nekkee nag bu concours dañ koy def yàlla def am nañ si ASP yu réussir police am nañ si ASP yu réussir gendarmerie am nañu ay ASP yoo xam ne sax def nañ école nationale d'administration am na ko si nekk diplomate ndaxte euh, boo amee master de nekk Sénégalais mun nga présenter wu à concours ñu def concours yu jàll donc ñi fu ne ñi ngi def lu ne mais am na ñoo xam ne nag defaguñu concours wala amaguñu yenn diplôme yi ñooñu moo waraloon tey ñu daje fi pour feet fu leen di dugal ñu toog liggéey fi si le ministère de l'Intérieur dina si jël force d'armée aussi dina koy defee ak ñett lañ si jël kook munu ma ko wax fi mais c'est que sûr que le ministère parce que am nañ fa solo am na sax ku fi proposé mooy préfet de Mbour. mu ne charte de la déconcentration bi ngeen di dégg président signé ko bu yàggul nee na maison de service public yi ñu ciy waaj a def danañu proposer ministre de l'intérieur naka la ñuy jëlee ay ASP ñu nekk fa nekk les animateurs principaux. kër gi di Sonacos aw na yoonu yokk li nga xamante ne ji moom lay jëndee njëgu gerte gi ci baykat yi waaye it euh, jëm ci gën a ubbiku ngir wabiti réew loole kàdduy leeral la yoo xamante ne ji njiital sonakos di moo du Diagne Fada moo ko xamle mi ngi ko xamle ci euh, ba mu demee kon ci diwaanu Lindiane doon nemmeeku ñu installation ya fa te ñeel waa Sonacos ñu déglu ko moom du Diagne Fada euh, ci micro Ibrahima Diamé. sonakos tey bu état bi xëyoon ne Sonacos ren yow bokkoo ci campagne bi bàyyil rek chinois yi jënd wala bàyyil rek indiens yi jënd fanweeri dërëm duñ ko jëndee kilo bi li tax kilo bi àgg foofu mooy xam nañ ne Sonacos a ngi fi donc Sonacos mooy réguler le marché bu Sonacos tëjoon rek ne ren bokkuñu ci campagne bi bu ñu leen bàyyee gan ñi dong ñu bàyyi leen nag baykat yi duñu ñu fanweer ak ñun tamit nañu def nañu def ndànk Sonacos la mu waxoon démb moom lay waxaat moom bu doon bu sañoon moom Sonacos ñu yokk njëg gi ñuy jëndee. leneen mu di woppi cancer ji bila à mi parcours lole bu ñu sukkandikoo ci. Ligue sénégalaise contre le cancer ñeel octobre rose ak xayma bi nga xamante ne ji def nañu ko bokk na ci ndoxteel test yoo xam ne ñu ngi koy def jëmee ci xool jigéen ñi nga xam ne nañu woppi cancer du sein am dee te duñu ci fay dara njiital liska di ma Guénoune di xamle ne lu aju ci moom li mbir daal euh, bilan bi ak ni mu demee ñoom amagum nañ ci mbégte Fatma Guénoune la ñuy déglu ci euh, micro euh, ñu kon ñu ànd ci leeral ak Fat bintu Konté Mohamed Dieng ci octobre rose commencé ba tey ji ñu ngi ci ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróomi jigéen yu ñu seet donc joxe nañu junni bon yi nga xam ne ne pour jigéen yi nga xam ne ne dañu bëgg euh, def def xam nga euh, euh, déjà ñu ñi ñu gis dara ci sa ween dañ lay may mamographie gratuitement léegi ñu orienté la hôpital Dantec pour docteur yi seet la suñ la seetee dinañ la jox bilan bi nga xam ne ne moom la ñu war a def boobu boobule nag dafa am ku liskaam dina leen jàppale bunge malade yi maladie du cancer l'œil de d'une patiente téere la boo xamante ne ji euh, professeur philosophie bi nga xamante ne ji woppi cancer ji yàlla da ko koo natto euh, di Thiane Ndiaye moom moo ko bind mu ciy ñëwaat di ci leeral loo xamante ne ji xam na ko ndax dund gu mu ko dund indi na ci leeral ñoo ànd ceeg Fatoumata Konté bañ ko yi ni dafa am ab concert mu nekkoon choc ci moom ba tax nii mu bind ab benn livre ndax jàpp na ni li mu dund waru ko mën a denc ci biir xolam moom Thiané Ndiaye la tudd mu ñuy xamal fi nga xam ne moom la jaar ak maladie bile. defal la ci man parce que booy dem hôpital. da nga dund yu bëri yu metti te doo ko mun a wax toujours doo ko mun a faj tu es obligé parfois de te conformer ak yooyu mais livre bi na la permettre nga euh, défouler euh, lépp li nga xam ne da nga ko woon ci sa ci sa ci sa jur. mu am nag lu nuy wax cancer du sein mu ñuy expliquer nan la maladie bi chéré fii ci Sénégal ngir faju bi cher na cher na trop ça coûte des des millions des millions et c'est pas à la portée de tout le monde. man mi maa ngi ko doon wax man mi pour ma commencer sama kii sama sama sama traitement il a fallu que ma def benn prêt bancaire. il a ma def benn prêt bancaire pour commencer sama traitement donc c'est pas toujours évident est-ce que ñëpp mën nañ def prêt bancaire. tax sax jigéen ñu bëri du ñuy faral di sawar di dem ci fi nga xam ne moom muy bërëbu fajukaay yi lii moo tax li ci ëpp ñuy seetlu taux de décès bi bari loolu ci wàllu cancer. parce que idée bi ñu ci am tamit la parce que dañ jàpp ne cancer ku ko am rek mënoo mënoo wér ku ko am rek yow dee mooy dee mooy sa kii. ñu ci bëri tamit loolu tamit day day day influencer même parents yi pour aide bi ñu lay apporter parce que ñu si bëri dañ naan maladie boo xam ne dee la lu tax ñu ciy def ay milliards ay millions autant pour moi bu fekkee ne de dee ngay def de toute façon waaw xam nga yooyu yëpp tamit ay contrainte la pour euh, malade bi. ci traitement bi nag gratuité chimiothérapie nekk na loo xam ne nguur ji moom moo ko jagleel ñi nga xam ne ñoom ñooy maladie lii caari nag di xam ne nii balaa loolu nag am na lu njëkk moo tax lu bëri des na ci. état jàpp na si loolu solagement lay doon mais tamit dafa am tamit yeneen yu nekk ci suuf waaw parce que ñu nee jàpp nañ ci te médicament yi duñ disponible buñ nee jàpp nañ ci te yow li nga war a def avant chimio bi amoo moyen def ko parce que doo ñëw rek dem ñu ne la da ngay def chimio da ngay avant chimio bi dafa am ay examen médicaux yu bëri yooy def mammographie ci la bokk dafa cher. li nag moom moom moomee di ñaan li nga xam ne moom mooy mammographie ñu rendre ko gratuite ngir mën a encourager jigéen ñi ñu mën a dépister wu ca na mu gën a gaawee. entrepreneur social bi gën a xarañ ci déndu ba Afrique bi tànn nañ ko ña ngi ko tànnee cim ndaje muñ doon def ca Kigali ga ca Rwanda ren jile ñu tànn doomu Sénégal bi di Rose ni ndax jéego yi nga xamante ne ji dëkke na ko def jëm rek eh, ci xeex wàllu cancer ak it lu aju ci luy dooleel wér gu yaramu jigéen eh, ci déndu ba Afrique bi rawatina ci Sénégal jéego mi ci la ñu sukkandiku ngir ba sargale ko noone dañu koy déglu eh, gannaaw sargal gi kàddu yi nga xamante ne ji dénk na ko Amadou Ba. satisfaction euh, ci li nga xam ne mooy consécration rek bu nga xam ne moo firnde liggéey bi nga xam ne depuis ay at ñu ngi koy def Sénégal ak ci gox-goxaan yi ànd seeg euh, Midi Sol International. et euh, dañoo tànn lu mat téeméeri sénégalais jury bi ñu nekk Kigali moo délibéré tànn ki benn fànn yu bëri ci su ci fànn yu bëri maanaam ci su ministère ci santé bi ci action sociale man ci sociale par exemple lañ ma tànnee euh, comme meilleure promotrice africaine maanaam ci Afrique yëpp mën nañ ci tànn ci mën nañ ci firnde koo xam ne moo ci def gën a def action sociale. jaare noo ne waxtaane xibaaru ñeel Afrique ak réewum Guinée gi nga xamante ne kon askan wa suba ak jàmm ci dimanche ji fas nañu yéene dugg ca mbañ gàcce ngir tànn seen président fukki candidat ak ñaar ñoom ñooy xëccoo réew ma ca ñooñee ñu ràññee ci Alpha Condé mi nga xam ne mooy le président sortant waaye te ràññee ci Cellou Dalein Diallo di opposant yi bokk ci opposant yi ëpp doole ci réewum gine Guinée démb gine ci bés bi ñuy tëj campagne électorale bi dégg nañu fitna ju fa jolle benn camp militaire boo xamante ne ji am ko fa song waaye loolee terewul askan wi nga xam ne ñoo nekk ci gine ñoom seen bëgg-bëgg mooy ñu woote ci dal démocratie dund ci réew ma loolee la ñu bëgg mu bañ a ànd ak benn fitna envoyé spécial télévision Futur Média ci gine Barka Ba. sooy doxantu ci mbedd Conakry yi amul dara lu lay won ne dëkk baa ngi ci fitna ku nekk di dox ay soxlaam moonte day démb rek commune Kaloum bi nga xamante ne mooy xolu capital bi dañ koo tëjoon ràpp ay diir ginnaaw ay cong yu ay fipp defoon ci benn camp militaire bu nekk dëkk bu ñuy duppee Kindia tànn njiitu réew bu ñu dëgmal suba te président Alpha Condé war a jongante ak fukki opposant ak benn te ñu gën ci ràññee Cellou Dalein Diallo nekk ci xel yépp je pense que demain. man yaakaar naa ni élection yi dina am ci jàmm nit ñi ku nekk ñoom di nga dem voter ñibbi sa kër ba pare toog fa. tranquillement comme y a dans vous savez dans chaque pays faw rek mu am ay xupaate ci parti yëpp waaye am naa yaakaar ni élection yi moom ci jàmm rek la nar a am. c'est passé très les élections nous espérons que mu am nag ñoo xam ni am nañ ci tuuti njàqare waaye di sàkku. mbir bi jaar ci yoon ak dal. parce que là il faut qu'on se que compte tenu wax dëgg nit ñi xaw nañu ragal ndax affaire waasa yi nga xam ne moom lañ yëkkati woon ci campagne bi waaye yaakaar naa ne comme parti yëpp ñoo ànd nangu processus électoral bi seen i taxawal kon vote bi dina yo dina am ci jàmm. mais quand même les Guinéens vont s'entendre et aussi. donte démb ay yëngu-yëngu yu métti amoon nañ ci dëkk bu ñuy wax Kindia nekk ci 130 kilomètres euh, Conakry. mu am benn colonelu armée bu nga xam ne daf ci ñàkk bakkanam guinéen yu ëpp yu ñu waxtaanal ñu ngi yaakaar ne suba dinañ dem vote ji ci jàmm. wax ka fàttali téléspectateurs yu télévi euh, télévision Futur Média ne élection yooyee di am ci réewum Guinée euh, ci euh, ba sub suba ci dimanche ji daañu ci ànd ak yow. ngir leeral eh, mbir yi ak eh, nan la tëdde des ba léegi ci yooyu waaye ak doomi Guinée yi nga xam ne ñoo ngi fii ci réew mi ñoom nag duñu ñu mën a dem wote ji mu di mbir moom rafetlu wuñu ko waaye ak lu ci mën di am dal eh, seen xel ma nga ci seenum réew bëgg nañu ki nga xamante ne ji mooy jiite réewum Guinée ginnaaw bu ñu génnee ci élection yi mu bàyyi xel bu baax a baax jafe-jafe yi nga xam ne réew mi ma ngi koy dund taxaw ci ñàkkum ndox ma réew ma di dund ñàkkum courant waaye yoon yàgg nañu yàqoo mu góorgóorlu ci lii mooy seen bëgg-bëgg ñi ngi xam ne ci reportage nga xam ne Habib Ba def nañu ko. Guinée dina tabb njiitum réewam ci dimanche gi xool ana kan rek moo war a jël lile ñaar ñi nga xam ne gën nañ ca fës bokk na ci njiitum réew mi yoon di Alpha Condé ak ki di Cellou Dalein Diallo. ñaar ñooñee nañ koy xëccowee metti na ba tax na itam doomu Guinée yeewoo fii ci Sénégal ñenn ñi sax yàgg nañu fi lool euh, te itam bu ñu soñoon delluwaat seen réew. moi depuis 1982 maa ngi dund fii ci Sénégal bientôt 38 tam maa ngi dund fii parce que bu ma ñëwee fii c'est mon de 16 ans je suis bienvenu ici à Sénégal sama adduna presque fii laa ko construit damay dem ak ñëw maa ngi daan fii sama doole di am di jàppal sama njaboot. j'ai sept enfants j'ai deux qui étudient à l'université bugg naa delluwaat Guinée toog foofu man ma dund ci sama réew. ana kan la nara doon waaye la koy xaar ci ay liggéey bëri na ñoom ñi seen yaakaar mooy ku mu ci mënti doon rek na xool bëgg-bëgg doomu Guinée yi. li fa manqué moom bari na lool Ah, gouvernement boo dafa war a soutien population bi te amuñu amuñu gouvernement bu mën a ci soutien population bi. moom am na liggéey yu bari yu koy xaar pan comme ñun nga xamante ne amuñu courant amuñu ndox amuñu ay yoon parce que loolu moo ñu gën a sonal suñu dëkk dafa bari problème parce que yoon yëpp yàqu na. waaye ñoom ñi yewoo Sénégal li leen metti lii dong la. lu tax euh, président bi di ko xeex mu naan euh, Angola du wote euh, Sénégal du wote bi saaw du wote. Cellou Dalein Diallo bile mooy ñetteel bi mu bëgg nekk njiitum réew. Alpha moom bëgg na doonat président de la république. doomu Guinée yi tey ñenn ñi sax. ne li ñu gën a bëgg mooy changement am ci seen dëkk boobee waaye am na ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi fare ci camp présidentiel bi ndax gis nañ ne liggéey mucc na ayib lu ci mënti am ñoom seeni kàddu moo di lépp nañu liggéey ngir doomu Guinée yi doon benn waaye itam problème bi benn xeet bañ fa amati. mbokk yi foofu la ñu yem ak yéen ci xibaaru marax yi ci télévision Futur Média amoon mbégte mu yaa àndoon ci ak yéen doon leen ko jottali xibaar yi dina dellusiwaat ci TFM vingt h di ngeen ànd ak soxna Naata mbay ci xibaaru français yi yàlla nañu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm.